jëkka laaj mooy suma kër gi ma lu woon anam cela signifie que moom joxe na feu vert pour que propriété privée am ci la dëgg def def loi pour daganal ko moom imam Shafii euh, waaye teewul it ca weer wa lañ ko rey waaw parce que dañ ko dóor dóor yu metti mooy mooy ñi nga xam ne ay fanatique lañu ils s'en fichent wax ne waru ko woon daganal ñu dóor ko bi ñu ko yóbbee këram mu faatu euh, pour wax la ni sunu borom boo boo fonkee sa bopp ba mu ëpp la mu lay gaañe dafay fekk lu tuuti mu gaañ la waaw euh, Jibril Gueye Samba Goni daf ma daan wax ni ma euh, yàlla ku mu noppiwul ci yow nee na kenn du la mën a rey waaw wante bu noppee ci yow bu la sànqaleñ màttee sa nga dee waaw loolu la daan wax te loolu mooy dëgg yàlla ku mu noppiwul ci yow kenn mënu la rey waaye ku mu noppi ci yow bu la sànqaleñ màttee sa nga dee moom noonu la dëgg-dëgg su ko defee max max moo daaneel Suleymaan ak ñu mu toll woon ak projet bi nga xam dem na ba jinne yi découvrir lu ñuy tuddee aynul xatra te mooy goudron indil ko ko pour mu di def ci yi muy liggéey taw bi bañ ko bët waaw yépp ñu defal ko ko ci turu yàlla moo fële ca Alexandrie ca Égypte dañ ma fa invité woon ay universitaires yu fa daje ni nak dañu bëgg nga defal ñu waxtaan mais thème bi yow ya koy tan ma def ko ci afarit yi astaghfirullah alazim cettt naka laa ko indi jox ko tawfiq avida moom sama doomu ndey la lu ne sañante nañ mu xool ko ni ma mais cheikh yow itam afarit yi ils appartiennent au passé <laughs> wallaay ndeysaan ma ne ko mais jubluwuma ci afarit mi nel jinne homme d'affaires yi laa jublu rek mu tëb wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ma ne ko ñoom ma mu ni ma ñoom ma piir nag bu ca desul dara wallaay ndeysaan mu ni ma gisal alquran rek mu ni ma ndeke lépp ngi ci ndeysaan fekk na xam nga bi ñu ne yàlla saaga na magi Quraysh ba desee lu leen dara mag ñépp dajaloo def seen texte ba ñu di ko tudde saxiifa ñu wax ni dañuy exclure yonent bi dootul bokk ci seen société xale yu sob yi ànd ak moom it dañu leen di exclure mag ñu doyati yi ànd ak moom it dañu leen di exclure ñu def ko wala bi bind ko waatoo ko dem taf ko ca kaaba ga ba war a xëy nag ku nekk sañse sol sa manto euh, bu jógee Iran ak sa bot yu jógee Turquie ak sa jaasi wurus bu jógee Oman ñu war a fa daje nag waatoo ko <clears throat> signé ko ndeysaan ndeke max ga lekk na ko xam nga max sunu boroom def ci wane kattanam parce que max am na am mais amul yaram boo ko xoolee rek gis ko amul yaram mbubb rekk la am mais amul yaram ci biiram ki ko ca niru di safaan ba mooy wattar wattar am na ay biir mais amul amul biti seetlu ko rek dañ daan seetlu wattar temps yi loo jàng danoo dem di sangu ci déeg yi di gis watar nga xam ni boo amee lu la dog ba mu nàcc boo jëlee watar léegi taf ko ci mu manqu ko léegi rey rey rey bi ci nekk waaw te watar amul amul der bu ko ëmb lumbu deret la moo tax ba léegi arab yi sañu ñu ko wutal tur ñu tudde ko alaq xalaqal insaana min alaq waaw moo tax amagul tur ci arab bu léegi comme ni nga xamee ni eh, max amagul tur ci arab ba léegi al arada lañ ko tudde waaw maa daggitu suuf lañ ko tudde waaw seetal loolu yàlla ngi xaar parce que noppeegul ci max te noppeegul ci moom te li max man kenn mënu ko dana tabax montagne dana daaneel montagne seetal loolu pour wax la ni li mu bëgg rek lay def li mu bëgg rek lay def waaw ko defee nag sidna Hamza xam nga yonent bi def ni way jur wu ku am fayda la waaw xam nga def ni ku am fayda la nee na ku sérieux la moom itam jom jàpp ko ba nanguwul dellu gannaaw ci ni muy protéger yonent bi waaye gis na ni saxiifa bi catastrophe la parce que dinañu exclure yonent bi dinañ ko dàq mook famiyam dinañ ko dàq mook xale yi mu àndal dinañ ko dàq mook yi caaxaan yi mu àndal te moom kon ci kan lay adresse ndax mag ñëpp bàyyi nañ ko mu ni kon yàllaa ci des mu ni waaw yàlla mi ma xam la mu dalee def ci sabaan ba léegi naka laa koy ñaane leneen muy li Maodo daan wax ni loo ni yàlla du ko seetaan seetaan na lu ko yées il faut que ñu xam ni yàlla loo ni du ko seetaan seetaan na lu ko yées moo tax Maodo daan wax ni waa Sénégal jaral luñ ma tekki sama sàkket ndax duma xam bu ma ko dee delloo dinañ ma jàppale wala déet waaw ba nu tolloo nii lañ nu ko jàngal moo tax on se méfie on se waaw loolu mooy li ci nekk il faut dire la vérité waaw moo tax doo mut nit da ngay bàyyi nit yéene la xolam rek jox la waaw waaye doo jóg rek ni damay wut nit catastrophe catastrophe catastrophe waaw catastrophe Cheikh nanguwu ko catastrophe waaw jóg wuti nit catastrophe waaw seetal koo xam ne xefam rek xefam rek mënuloo ko defar nga ni dem cay wut junni loo koy doyee rek mënuloo ko defar loo koy doyee la koy doy maa ngi koy wax sama xaritu koo xam ni noo bokk at mu ñu juddandoo mais doom bi dafay toppatoo affaire journalisme génnagul sax ma ne ko na nga ko digal ni ko journaliste boo gis rek yonent la nañ ko teel a def ci seen bopp ndax wala qad wasalna lahumul qawl kooku kooku dafa ëpp ah dix millions ci nit yow ngay kenn mënuloo defar xef nga xëy jox leen information ni nañ ko jëfandikoo yow yonent nga ah? yow yonent nga il faut que ma ni ko na respecté loolu wala qad wasalna lahum alqawl laallahum yatadakkaruun ah al awdatu ila dikra waaw al awdatu ila dikra ndax yàlla dafa wax ni ki may mujj di waxal arab lay wax kon nak na waajal arab mu kon nang ni jundi at luxal arabiya luxal arabiya waaw di ko organiser en tariq al fitra la en tariq al wahy walakin an tariq al fitra waaw ñu di ko ko organiser al luxa al arabiya waaw lay defee parce que xamna ni yonent bi bi muy mujj waxal koko arabiya lay wax bu ko defé fexena ba ñu tegal ko ñu tegal ko garde fu yépp ci bir lu rabbi nga xamni ki muy waxal lu mu yàkkamti du ma nek ku bavar ndax kuy wax ak yalla ñaar rek ngay waxe mom ubbi sa nopp du tik sa gemmi ku yàllay waxal fokk ñaar yee nga nangu ko ubb sa nopp te tëj sa gémmiñ looloo tax garde fou yi ci luxal arab yi amul ci beneen luxa waaw ci beneen luxa xëy na anglais yi am nañ ci dara français yi am ci dara allemand yi am ci dara mais ku ci nekk boo ci amee benn sax bare na bu ko defee benn garde fou lay doon ci sa langue wala ñaari garde fou alors que arab yi am nañ ci lu mat fukk garde fou yu nga xam ni fokk nga nga taxaw ci fokk nga taxaw ci parce que boo ci taxawul kenn du xam li nga tudd lan la waaw kenn du ko xam su ko defee <laughs> yàlla dogal xam damay faral di wax ni le français le français c'est une langue c'est une langue de querelle hein, une langue d'intellectuel ça il faut le dire waaw hein, mais passewul Ben, benn garde-fou bu ñu dugal ci biir langue bi amul te français yi amuñu cawarte réorganiser ko catastrophe catastrophe ah. moo tax ku ñu yar jàngal la yaay dàq xuloo ci àdduna waaye doo def lu sotti motax ñi jangal avocat lañu ñu waroon ça il faut le dire bu ko défé anglais nak l'anglais c'est c'est une langue euh, d'énigme une langue d'orgueil ça il faut le dire qui s'est imposé d'ailleurs à tous les niveaux mais qui nga anglais yi ñoom itam li mu jur ci ñom seen yëpp nga ngay D'ailleurs, il, commence à, à, se lasser de, de, cet aspect énigmatique de la chose. ñu nga ca ñoom borom yitte mais xam nañ ni bii doxal parce que bind loo dul jang jàng loo dul bind kenn xamu ko moo tax lugal arabiya amul morom ci kaw suuf mais ñi koy waxee xamuñu ko waaw ñi koy waxee xamuñu ko moo tax yàlla li mu ci àdduna nga xam ni moo ëmb univers bi benn baat la benn baat la wante du ko tuddagum du ko tuddagum ñu ngi ci biir nag baat yi nekk ci alluxa larabiya su ko defee mu ngi topp rekk ñi mu jëkk a may pour ñu xellu baat bi muy égyptien yi l'Égypte antique ñoom xellu nañu baat bi te mooy baatu mémoire mooy baatu mémoire moo ëmb univers bu ko defee ca at yu jëkk jëkk jëkk jëkk ya ci ci égyptien yi am na lu ñu daan tuddee sécheresse mu dox dox junni junni at ba mujj ñu di ko tuddee sécheresse un que remplacer un x fekk borom bay liggéey rek en tariq al fitra waaw mu tàbbisi ci loxo arab yi arab yi war ko tudd te ñoom dañu bare ay garde fou waaw ñu ni naka lañ ko war a tudde fekk borom bi ci alquran moom tudd na ko ba noppi parce que bi il faut que daal val val the il faut que mu remplacer ce waaw parce que the ci garde yi la bokk te lu day la mémoire nga di ko tudd te xaraf ba garde nekku ci catastrophe catastrophe catastrophe moo tax ñu ni daal من الحروف الرخوة المتصوتة ينطق بها فيما بين الأسنان ذ ذ من يعني بول بول بول فرسي بول بول بول فرسي مك ذ واو من الحروف الرخوة آه. المتصوتة المتصوتة ينطق بها فيما بين الأسنان Euh, c'est une, c'est une lettre pricative, interdentale, un peu sonore. Wow. que qu'on règle fait, il y a y système Un système bu mémoire yalla proposé a le ak système le système de culture tout va imposé imposer. parce que sommes coloniser Nous, ñoom une colonisation pour euh, négatif la bu doon ci yalla du nek bat bu négatif wastaxmarakum nous fiha su ko lu mat a bàyyi xel na ndax Maodo sonnoon na ci mais rekk mu wax ci solution bu wóor dafa doon laaj rekk ndax euh, bu ñu demee ba mu yàgg médiation du mën a am diggante culture bi ak mémoire bi parce que mémoire bi alalu yàlla la moom lay doxalee univers bi moom lay doxalee univers bi mi tubaab bi itam bi ñu coloniser le colonisateur culture lay doxale euh, mes itam système am looloo tax te culture bi dafa am muy jur même bu rupture amé diggante culture bi ak mémoire bi da gis li culture bi jur moo tax nag Maodo jaaxle ci ne est-ce que médiation du du mën même médiation bala mën nekk ñu xam secteur yan secteur le culture bi di mën a évoluer yàlla wax na ko yonent bi wax na ko ni ko même bu rupture amee du tax ma abandonné culture bi dina ko may mu évoluer ci secteur bu ñuy tuddee lahwa lahwa waaw mooy loo nekk mu fàbbi la ba doo seetlu ndax farata la walla du farata nga nekk ci ba xëy wëy ji sa borom te doo am benn temps pour seet ndax li nga nekk farata la wala du farata moo tax ñu tudde ko laawa waaw laawa mooy firi ci wala fab bi lu la fab bi ba doo tal taxaw ni man li ma nekk lan la seetal loolu ñun fo rek wax catastrophe catastrophe waaw ba tax na kon bu laaxib ñëwee loo koy tudde ah. loolu na waa seetal loolu parce que baatu laxwu dafa yóbbaale lépp loo xam ni dafay fëkk sa xel ba tax doon ni man li ma nekk lan la te kooku colonisateur bee ko dàq ñëpp moo ñëw imposé la ko imposé ko sa baay imposé ko sa nijaay imposé ko sa maam li ma waxoon Ali Baate Mbuub di ko yi ngeen di jàngale ci maam ak maamu diw maamu diw jàngal leen ñu ko ci littérature parce que suñu maam yi am na lu lu tubaab yi di euh, def ba mu mel ni bul neex ma ni ko takkat terewul ñu ngi lekk euh, ñu ngi lekk dugóor te dugóor dafa saf sukkar ñu ngi lekk màngo te mango dafa saf sukkar ñu ngi lekk dara kasu te dafa saf sukkar mais tubaab yi dinañ jël dara def ko benn bul rek bul ba saf sukkar ñu jox la ko yow ngay sàlli bu ko defee région yi xamuloo bu ko ci tuddee tàngal xamuloo bu ko ci tuddee suukar kandi xamuloo bu ko ci tuddee mos yongan xamul waaw seetal loolu wallaay wallaay ñoom saalit nañu ba ko tur wu ne te lekk nañu suukar ba tey waaye bu tubaab bi def nii rek jox leen ko mu nekk ay bulet boobu moo leen rey ñu ni lee aljanna la jóge seetal lool ñi tudde ko kamb ñi tudde ko mos jonke ñi tudde ko tàngal tàngal nag mooy lu tàngal sa yaram <laughs> ñi tudde ko suukar kandi xam nga suukar kandi presque ñu ngi ko sàcce ci alkandar alkandar mooy daakaande yonent bi daan na wax ni baax na ci tàngaay waaw su ko defee ma ni ko yooyo ngi ci xam nga alibata dafa réew moom yare di ko wul mais dafa réew parce que nit ko yiw dafa dafa dafa réew waaye du yare di ko ne waaw soxna sukka ne ko daan wax su ma nee yaa réew ma ne ko yàqu ko jëkk wax mais ñi ma àndal ñëpp ne ñu dama yaru mu ni déedéet waxuma ne da nga yare di ko dama ni da nga kenn mënu la fóotal kenn mënu la toggal lay ndeysaan ba tax na euh, yooyu daf fi nekk te tubaab yéen ko jox waaw mais lu mët bàyyi xel li yàlla wax yonent bi ni ko dinañu évoluer ci sectoru laago te mooy lépp lu lay fàbbi te du sa farata lépp lu lay fàbbi te du sa farata seetal loolu mu nu ko ak ci domaine laayib laayib moo gën a wàcc tuuti ci wàllu fo bu ko defee yóbbaale na dam yi yóbbaale na chatranj

moo tax mag ñi ragal luxe waaw dañ ko ragal ndax dafa am lu mu dendal te te ñu te gis ñu ko gën te kooku nag nanguwul jege culture bi moom mu nga ca mémoire bi waaw te mooy confort atam Maodo ñaan yàlla ni ko yallaahu yallaahu farzuqni rafahiyatan waaw waaw laysat bi waahiyatin rabbal xaliqati waaw moo tax mag ñi seen néeg du am luxe mais confort a nga fa suuf si boo mën a am boo ñëwee ci seen buntu nekk fa lay des waaw man maa ko xam ndax dama daan dem kër Serigne Cheybatu mu di ma jàngal may dem kër Serigne Alioune Gueye mu di ma jàngal may dem kër Serigne Birane Sarr mu ma jàngal may dem kër El Hadj Makhtar Sall mu di ma jàngal moo tax dugg mag ñi yëpp confort moo fa nekk boo dugg rek sa suuf si yëpp di jaax waaye bu dee luxe nag dafay yokk souci parce que éblouissement la lay jox du la jox épanouissement mukk mukk xooy xooy rek xooy xooy rek waaw loo xooy xooy xeeb ko <laughs> loo xooy xooy rek xeeb ko mais du la noppal parce que du adressé ci ruux bi mu ngi adressé ci bakkan bi waaw loolu moo tax waaw moo tax confort moo am solo moo tax anglais yi gën muus ci tubaab yi ñoom confort moo leen intéressé wante français yi itam nga xam ni ñoom xulookat lañu rek noskat lañu ñoom itam luxe moo leen gën a intéressé waaw yii dafa am mais léegi tadaaxul mi ngi am tadaaxulu achar wallaay ndeysaan baax fi baax loo ci mën ndax léeg-léeg nag ay anglais toxu dem tugal léeg-léeg ay francais toxu dem Angleterre loolu dafay indi tadaaxul waaw nag pexe amu ci mais itam foog nga topp ko jàng ko parce que mag ñee tax mag ñi ñoo la wax ni euh, confort moo baax kon it foog nga dem jàngi ko ca anglais ñu wax la ni luxe wattandi ko ko foog nga dem jàngi ko ca français il le faut absolument moo tax mu ni ko ci secteur yi laahu laib zina waaw ca tegu mooy tafaaxur tafaaxur waaat petites et grandes vanité waaw waaw ko defee château yu dugg palais yu dugg protocole dugg yu kenn xamul wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan yu kenn xamul bilaay yu kenn xamul wallaay yu kenn xamul wallaay ndeysaan tafaaxur waaw tafaaxur waaw tafaxur baynahum waaw maa moom bii pale déedéet moom loo ko man maa moom bii déedéet man maa moom meuble bi déedéet moom loo ko man maa moom bii tafaxur waaw tafaxur baynahum bay tafaxur baynahum waaw bu ko defee mu ni ko boobu dinaa leen may ñu évoluer ci daañu dem sax ba mondialiser ko mais depuis que ñu dugg ci loolu mondialiser nañu yëpp mondialisé nañu laaw mondialise nañu laayib mondialise nañu siina mondialisé nañu tafaxur waaw petites et grandes vanités waaw waaw kon nag lan la ñu ni moom la ñu bëgg a mondialisé te crise parce que yooyu bu ci ne jur na crise xanaa crise la ñuy mondialisé ko ah mu des benn takaasur fil amwaal booba tas àdduna nag takaasur fil amwaal waaw maa moom franc déedéet man maa moom sterling déedéet man maa moom dégg nga euro man ma rek takaasur fil amwaal takaasur fil amwaal wala awlaad déedéet maa moom japonais yi déedéet yow chinois yi nga moom déedéet man maa moom arab yi yow yaa moom nègre na nii rek abadan abadan waaw takasur fil amwal ba guerre yu mag yi takk waaw ñu rey ci une cinquantaine de millions ci ay doomu aadama ñu soog ko commencé te ni erreur la commencé te waaw seetal loolu yonent bi yàlla wax ko nu ko bu crise amee wala rupture am yii danaa leen may juróom yi ñoom ñu évoluer ci mais Maodo nag jaaxle parce que tubaab yi ñoo nu colonisé naka la ñuy def ba culture bu day nii jël juróom yu amee ni importance mondialisé ko yow nga ñu yilif la te yow bëgguloo dëggal seen mission yaa ngi bëgg a dëggal mission mémoire bi te mémoire bi ñetti secteur rek ci la mën a évoluer secteur bi ñuy tudde yàlla bi ñuy tudde alquran ak bi ñuy tuddee Muhammad ci ci secteur rek la mën a évoluer bu ko defee ñett yi mu taxaw nag ci universaliser ko universaliser ko bu ci ne mu teg symbole am rabbil alamin ذكر للعالمين هدى ورحمة للعالمين rahmatan lil alamin bi القرآن بي بي dellu ci yonent bi bu ko defee mémoire dellu si yàlla taxaw ak mémoire am colonisateur bi taxaw moom itam ak culture am na ngay def ci diggante bi na ngay def est-ce que yow mën nga jouer rôle médiateur wala mënuloo ko en yii daal boo ci seet ba ca biir accessoire lay doon bu yàlla bi bu loo ci seet ba ci biir essentiel lay doon bokkul bii dana la jox ébalu épanouissement bii dana la jox épanouissement jeex na bu ko defee Maodo daf daan gêné waaye terewul jàkka yi di jàng waaw terewul jàkka yi di jàng yal na nu yàlla musal ci tubaab waaw jàkka yëpp di ko wax nag waaw naawudu billahi min sharil kufaari wa min charri nag góor gu mag ga woon ni rekk moom daf leen di jaxase ndax boobu dafa tiitoon wa min charri chayatini min charri nasara ndax jaaxle rek lay ndeysaan waaye fekk na ëpp naa sàggane ëpp naa sàggane parce que itam dafa am benn côté boo xam ne dara dafa feeñ moo di xam nga toujours dañuy wax aljanna ak safara aljanna ak safara aljanna ak safara daañu ci ñëw mais c'est une très mauvaise méthode waaw moom lañu ñu tuddee méthode du tarxib ak tarxib baaxul baaxul ku def lii dem àjjana ku def lii dem safara du méthode bu baax mukk mukk xam nga ñu ko fi indi mooy ñi nga xam ni rek espèce de koccu barma lañu amul leneen parce que moraliste yi ñoo ko indi parce que moralisme defarul àdduna mukk defarul ko mukk te gis nga xale bi gën a tuuti am ñeenti at indi ko léegi ci télévision bi mu waar ñépp ba ñépp di jooy te ci moralisme rek lay sukkandiku mais xamu ko xamu ko xamu ko méthode yépp moom la ci mag ñi gën a ragal moo tax ñu tudde ko tarxib ak tarhib waaw moo tax ñu tudde ko ba tax na euh, yonent bi tuddal nañ ko baatu mémoire mu di baatu zikra mu di baatu zikra إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نين يالا دافا فونك بوبم بوبو دي واخ دافا نان نون يالا نون يالا مي بوني والي توت سيستم موتاخ ليمو ليمو واتي رك موي موجي parce que le système bi yépp ci wa inna lahu la nee na ñun ñooy assurer continuité bi waaw loolu wax na ko pour wax la ni nag moo koy mujjee moo koy mujjee na kon nañ naka naka def ba médiation am diggante culture bi ak mémoire bi ah du ñëpp ñooy mën a am kàttanu def ko te foofu la ñu toll tubaab yi imposé nañu seen système bi tudd culture yàlla proposé nañu système am bi tudd mémoire est-ce que am na ku mën a taxaw jouer rôle médiateur bu fekkee ni rupture dafa am bu fekkee rupture am na ci juróom yii rekk la culture bi mën a defaroo bu ko defee mémoire bi moom ci ñett yi rek lay mën a defaroo parce que moo yenu àdduna bi moo yenu alam bi loolu moo tax su ko defee mais du caaxaan du caaxaan waaye itam ki ñu fab fab bi ki ñu fab bi xamul ni du caaxaan xamu ko moom moo wax ko te du ko xam mukk abadal abidin mag ñi nag am na lu ñu def ci ni ñu waxee ñoom te feeñ na ci seen hymne hymne de l'espérance parce que ñoom hymne duñ ko chanté sañuñu ko duñu dem ba ci kanamu yàlla di ko way sañuñu ko waaw dañuy réciter dañuy réciter parce que ñoom nañu réussir nañu loo xam ni mën nañu tudd ni performance la mooy fexe nañu ba minorité bi waroon dem na soppi nañ ko mu nekk majorité kon wàcc nañu waseet moo tax man ma defe ni koo mën a joxoñati ni safara la jëm kër mooy argaw ma ni amati na ci kaw suuf mu nag fokk ñu nangu fokk ñu nangu eh, la mu tollool ci coono te mooy ñu organiser jahannama ci kaw suuf il le faut absolument sa jabar di sa jahannam sa xarit di sa jahannam sa kilifa di sa jahannam sa correspondant di sa jahannam il faut que nga accepté boo ko accepté torox ba tottoo rek waaw te doo dem waaw ah mais ñu séddale àjjana jar na ko waaw jar na ko parce que àjjana mën nga fa tëdd dix milliards d'années waaw fii boo fi amee juróom fukki at ñu ni màgget moo tax il faut que ñu organiser suñu jahannam fii ci kaw suuf ndax al muminu nag laa yadxulul jannata marratayn <laughs>

waaw te boo dalee ci kawam nag toj musiba baaxul baaxul foog nga accepté ko mu ndax Maodo dafa ni muñ amatul yéeg na mais mag ñi ni muñ amatul mais tey tey am na te tey ëpp njëriñ muñ parce que muñ gàcc la te tey dafay liddeeku boo ci tegee rekk stratégie bu mu manti li nga am satisfaction boo teeyee boo teeyul nag moo nga yeeyu doj benn xad yudrikul mutaanni wa qad yakunu maa al mustaajili zalal waaw Sëriñ Aline Gueye bi kulliya la waaw nee na bi kulliya la waaye waaye nit dafa dafa yonent bi nga xam ne nitu mesure la nitu mesure la looloo tax mu ni la boo teeyee sa lenn ni soxla dana faju waaye lim ci jublu mooy sa léppi soxla dana faju waaye rek nitu mesure la foofu rek lay mën ñëpp waaw te lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la nit ñi nañu organiser seen jahannam nañu xam ni seen xarit seen jahannam la nañu xam ni seen jabar seen jahannam la lolo fi nek seigne Babacar daf mani dom. Nous n'avons chance Nous len ëpp chance parce que ñun suñu xarito xarito ñe ñemente la won yeen seen xarito faire, ëkkoonte la catastrophe amu ci kenn ko am xarit xarit ba amu kon nak organiser organiser gi lu bon bon mu rafet bokk lu bon bon mu rafet ba waaye da ngay xatar xatari li ma diw def li ma diw wax li ma diw def li ma diw wax te fekk jaru ko nag boo teeyee tuuti rek gis but waaw waaye boo nee rek ëppalewu ma dara nangam nangam àdduna tukki doxul waaw moo tax qad yudrikul mutaanni baada xajatihi wa qad yakunu maa al mustaajili zalalu waaw Sëriñ Aliou Guèye ko daan wax dëgg-dëgg mu mel ni kon nag ah ndegam yàlla moom ci boppam moo man yabal max muy yàq yi muy yàq di tabax yi muy tabax waat na cell ni mësuma gis lu mën a yàq ko max mën ko te ñu ci moom ñu ngi koy defar noppeegul parce que am na der te amagul yaram wattar am na yaram am amagul der waaw mais malheureusement malheureusement ca temps yu lay passé maa ngi dégg ni scientifique yaa ngi jëm ci wattar ma xam ne kon catastrophe lay doon parce que dinañ ko jël ba mu jeex gis nga ni ñu def yamb yi noonu la ñuy def wattar yi xam nga ñun dañ daan am gani yamb ci kër gi waxtu wu ne ma gisi tolloo leen parce que xamatuñu fu buntu kër ga féete tubaab yee leen sotti ay poudre ba xamatuñu fu ñu jëm bu ko defee bu ñu bëggee jël fleur pour def ko yemb léeg-léeg ñu yem ci kaani sax pour def ko lem catastrophe catastrophe léegi ñoom ñoo ko def nañu seen réunion ba ñu nga jëm ci watar yi parce que nañu maladie yi dafa bare te amatuñu nag lu amatuñu lu ñu gànnaayoo eh, pour jëm ci kon nag watar yi rek la ñu yaakaar pour ànd ak ñoom seet ba xam nañuy def ak microbe yi ça il faut le dire xaw ma nag ndax am na ñu leen mën a digal pour ñu bàyyi leen waaw ñu bàyyi leen ngir yàlla parce que yi am nañu njëriñ waaye bu ñu leen jàppee def leen ni ñu def yem bu it àdduna bu tukki lay doon àdduna bu tukki lay doon ndeysaan sëñ Babacar dafa mas am benn gan gan nga feebar mu ni ma nangu ko yóbbu ci Serigne Seck pour ñu faj ko booba Serigne Seck fa nekk ñu di ko wax doktoor booba koy faj rek moom boo dee garçon de salit docteur lañ lay wax ñëpp docteur waaw ma indi ko eh, Serigne Seck indi réchaud indi casserole daldi defar taal teg casserole bi ñu indi lu day ni yet wi dugal ko ci biir casserole bi muy bax euh, góor gi ni ma waaw lii ñuy baxal moom lan la fekk seringue bi lañuy ñuy préparé booba melagul ni booba ni yet la toll faje dañ koy dugal ci sa yaram mu toog si ni ma waaw euh, dama bëggoon a gaanuwaay ma ni ko demal te ñëw ndeke dafay daw ñu ngi ko jàpp yi ca tollu mango yi ma ni ko nag yow li nga def caa caalit la ku ñuy faj mu ne ma ah lii kër faj nit mukk waaye fekk na yëf yi dafay dox kenn bu ko weddi waaye itam ñoom li ñu wax ni ñetti baat daf leen jaaxal baatu affirmation batu confirmation ak batu infirmation ci ben bir parce que bu ñuy def recherche ba génne leuf même que ñu ko tuddé sax ni mom la dañu ko baaxee rek mais équipe ba y trouvé waaw ça il faut le dire tout de suite mais dinañ ko lé kenn parce que lolu ci dara la bokk ci taru dara la bok waaw fekk lo xamni ñepp ñëpp ko gisandoo ñu ni diw ko jëkk a gis waaw loolu ci taru dara la bok waaw mais ñu ni li leen jaaxal te jaaxal leen bu ñu xasse tuddu affirmation bi moy sen contact avec les officiels pour won leen ne affaire bi jaar na yoon officiels yi ñoom itam ak seeni kattan ak seeni budget ñuy seet naka lañ koy tase ci àdduna bi moom mooy nekk confirmation bi mais aussitôt après c'est l'infirmation la dañu gis mu faj fii gaañ fii dañu gis mu faj fii gaañ fii waaw ñuy laaj nag ki ci gannaaw loolu kan la man leen yàlla la waaw kooku kay moom ku ne xam na bu ngeen yeboo tudd ko benn yoon rek nit ñi noppalu moo gën waaye ki seet fu muy doxale soxlaam di tegle ay bant di tegle ay bant di tegle ay bant di tegle ay weñ di tegle lu ne ba xëy mu nekk automobile mu ni kii mën na dox soxla nit ñi di ci dugg ba lu dul jeex ci ay nit dee ci mu soog a trouvé ni nekkee ceinture de sécurité war na seetal loolu infirmation boobu kan moo ko sabab bu dul yàlla parce que yalla nag mo limité doomu adama xam na te limité wul insecte bi mukk même doomu adama yalla def ko coincé parce que bu ko coincé wul aduna tukki motax mu jël li ñuy al aql intellect daaj ko ci wóoram gi jël li ñuy tuddee neer laxase ko ko ba ko jéggee nga yóbbu ko ci psychiatre bi léegi du taxaw mais bu dee insecte du ko joteeg moom parce que insecte du tasa adduna xëy na dana fekk euh, nit yu tooñ yàlla rek te ñu ko bay seen mbay ba mu jeex ñu lekk ko teg te kooku du ma yàlla du ma yàlla kat fekk ku tooñ yàlla ba noppi nga lekk mayam kooku du tooñ yàlla ma wax maa la ko wax kooku loolu rek la إذن سيدنا حمزة كانوا بنيون لك صحيفة بي تنيو ديكو جوتالنتي أم نيوني لولو أمنا أم نيوني أمول تمو جاخل تبن خيرتو جاخل نخمنو الباي مكو دومن بي dina ànd ak moom ba am satisfaction walla mu ànd ak moom alko waaye xam na ni yàlla loo ni du ko seetaan seetaan na lu ko yées waaw waaye faf yàlla yabal max ga mu lekk ko magi Quraysh yi yépp rus am gàcc moom it xam nga mu xaw ci teqalikook sagoom tuuti ndax mbëggëri gu te yonent bi daan ko seedeel ni ku sérieux la mu am ree ku mu ca ree ñépp ni reeg bu doon tey dañu koy enregistré jox ko jullit yépp ñu di ko déglu pour wan la ni même reega ci xaw ñàkk sago la ko teg parce que lëf li def ci bët bu mu ëpp bu mu ëpp keroog la jëkk ree ree gu ñu war a mën a dégg nga jox nit ñi bu dul loolu du ree mukk de de de dana muñ rekk waaye du ree comme bi wallaay ndeysaan moo tax mu laaj nag waa Quraysh izzatukum azamatukum jabarutukum taxdaul yawm li ahwana ibadillahi fil kawn <laughs> ñu ni kon nañu ko enregistré ma ne enregistré nañ ko bu yàgg ah, affaire bi lu muy jariñ lu dul lool képp ku fi jaar loo wax affaire bi jël na ko mu ngi koy xaale ëllëg pour étaler ko ci kanamu borom bi waaw ku fi jaar te sa image nekk fi jël na ko waaw borom beeg ko sant bien sûr tubaab yi mënaguñu àgg ci fu ñuy nangoo loolu ci moom waaye nag ñu ngi koy jariñoo ci yeneen i secteur Ça, il faut le dire. Euh, su ko defee mu mel na li ñoo tudde sago dafa di farata su ko defee ci wàllu ngëm sax wax ju bare mën na ko yàq ngëm wax ju bare mën na ko jàq waaw mbel mbel ju ëpp baaxul dama dem Algérie maa ngi ànd ak Haj Moustapha Cissé Euh, président ba yóbbante ma ci Abdou Diouf ni ma nee ko mu set ma waaw te itam nee ko na génn waaw ndax àdduna bi léegi génn fi des waaw ma ko baax na naa ko ko wax ca ngoon sa ñu organiser ñu benn daje daje ba ministre yi ci représenté gouvernement bi ñu ngi toog nii mufti baa ngi toog ni chef d'état-major général baa ngi toog nii parce que moom dafay intéressé ci yépp xale yi ñu chargé culture yi ñu ngi toog ñu ne ñun dañ doon laajte ndax senegaal woykat boo xam ni woyam dana génn cadre mbel-mbel dugg cadre universel am na fa walla déet ma ni leen am na fa ñu ne naka la tudd ma ni leen xaadi ma jaxate kal ñu fan la dëkk ci Dakar ma ni dëkkul ci Dakar ma nga dëkk ci village am ma su fa jóge fa la jànge fa la màgge fa la dee mënuñu ko dégg ñu ni waaw est-ce que mën nga ñu wax ci wayam yi benn ma wax leen aluudu bi taaha sayyidil kawni wal urbi On est du moment que tout donné Yonenti bi Sayyidul Kawn, pour se justifier, il faut que nous présentions ay éléments yu nga xam ni ci cadre universel la koy présenté leen moo tax wayam mën a jóge ci cadre piccuxu piccuxu bi xew ci Sénégal dugg ci cadre universel ñoom ñëpp ñu nangu ko ñu ni waaw est-ce que am na fa philosophe boo xam ni philosophie génn na cadre piccoxu piccoxu dugg cadre universel ma ni tekk nag ba mujj ma ne ah am na fa ñu ni mën na mu tudd ma ni leen Sëriñ Yusufa Jóob ni fan la nekk dakaar ma ni déedéet ma ca kaw waaw yéen lu tax nga ni moom philosophie mën na dugg ci cadre bu universel man leen parce que dafa am benn njabootam bu ko laaj di ko sëriñ ndax musique dagan na mu ni ko laajte bi yàqu na musique kenn du ko laaje ndax dagan na dañuy laaj ndax yiw na man leen ubbi na bunt bi parce que li ñu coincé ñun ñëpp mooy kiy laaj du génn troisième siècle ki koy tontu du génn troisième siècle góor gi nag daj na loolu mais ñun ñëpp ñu d'accord ci ni parce laajin boobu mu euh, wax ni kenn mësul gis lu mel noonu parce que xam nga li daggante yiwul li daggante yiwul mag waru ci dugg donc euh, laajin yooyu jeex na li nga xam ni dagan na wante yiwul mag waru ca dugg looloo tax mu ne ko musique kenn du laaj ndax dagan na wala daganul dangay laaj ndax yiw na wala yiw bu yiwee mag mën caa dugg bu yiwul na ko mag wattu ñu ni ko lool la mais lu ko gën a am solo ci sunu temps bi amul parce que ñi ëpp kattan ci àdduna bi tubaab wala beneen nit ku weex ëpp doole ñun ñëpp ñëpp seetatuñu lu lu lu yiw lu yiwati déedéet ñu ngay seet nag ndax autorisé nañ leen ñu def ko walla déet même bu ñu wulit ñu ngàcc te kooku catastrophe la catastrophe la ça il faut le dire mu ngi mel ni affaire polygamie mu ngi mel ni affaire polygamie benn kilifa boo xam ne ci kilifa yi gën a màgg la bokk man xam naa ko amul benn révolution boo xam ni bokk ca te itam yàlla dogal li mu bind ci ay téere kenn xamul na mu toll te itam bare na ay milice yoo xam ni moo leen di financé pour wax la ne àlalam amul fu mu yem benn bés ñuy waxtaan maak moom fekk li ñu jëkk a jotale sax mooy eh, dama fa doon dem ñu jox ko samay coordonnées yooyu may ñu jox ma coordonnées bërsëb mu ëpp ma yitte daal di may woow mu wuyu ko bi ma yëkkatee combiné bi ma ni allo mu mer ni ma parce que jullit du wax allo dafay wax asalaamualeykum ma ni ko mais ci charte fekk l'islam defar na téléphone ma ni ko mais l'islam ba léegi defarul téléphone waaw waxatul nag ma defee ne dafa dem sax nekk mi ngi ci téléphone bi ba mu juma ni ma billaay yaa ngi may bëgg a rey fi ma ne daal di ñëw seet si mu ni ma wax nga loo xam ni mu garaawee dafa بس يونس بيبوي بوي واحد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل من هو بوبو جوليت كي باريو ليغي 1 مليار دمي لا تبا ليغي جوليت ييب دنج لين ييلف تتجو سين جيمين كون كاي تيج سين جيمين جوتنا 1 مليار دمي يونس بي ام كو تما نيو ديفار بكان بكان لا كوكو جادو كوكو جادو ma wax ko ko nag ñu continuer di ci waxtaan ba mu laaj ma ni ma dafa dégg ni sëriñ yi fii ay polygame lañ ay polygame lañ ma ni ko waaw kay <laughs> góor gi daal moo feex rek mu ni tey mu dee ni ma ko gëm yonent bi du nekk polygame ma ne ko fii ci yéen ko man ngeen ko tere parce que mën na jur déséquilibre au niveau de la société ma ne ko mais bu dee ci ñun du jur benn déséquilibre au niveau de la société ma ne ko lool nga war a set ma ne ko gis nga li yàq yëpp mooy nangam araam na nangam dagan mais su fekkoon ni dañ naan nangam dafay yàq c'est-à-dire dafay jur des équilibres au niveau de la société ku nekk war na ne ah nan ko wattu mais loolu amul dañuy fekk loo xam subjectif la te mooy ni nangam aram. na bu ko defee nga nangam dagan na bu ko defee nga précipité ci te fekk mot bi bu subjectif la waaw il y a absence d'objectivité motax moy muy moom la ne bu fekkoon dañ ko soppi kon buntu dana mën a am euh, ma ko benn garab rekk moo bon car ya bon banqaas ya bon garab ba bon reen ya bon mooy bak bokkaaleeg sunu borom ma ko lépp ma bon ma ko waaye leneen luñ la ni bon na yonent def na ko ci yonent yi pour wax la ni li siiwoon ñi kenn dootu ko def mooy dafay jur déséquilibre du leneen nag ma ni ko yonent yàlla Suleymaan amoon na ñetti téeméeri coro ñett waaye ci jamono daawul jur déséquilibre lu tax parce que bu leen dencul du ñu am ku ñu see parce que ay doomu nit ñi loolu ñu te budget ba leen di amee moom rekk moo ko man ndax nangu na alalu ñëpp nangu na alalu ñëpp il faut que mu accepte nag euh, pour entretenir leen il le faut absolument parce que kenn amatul dara moom rek moo am loolu rek la mu am ñetti téeméeri coro ak lu ko doublé ci ay jabar seetal loolu kenn du xiif kenn du mar kenn du ñàkk takkaay parce que mën na ko budget àgg na ci loolu moo tax bu ñu nee yont yàlla noox jaxasoo na ak doomam bu jigéen te bu fekkoon dafa aram ci jamonoom du ko def mais parce que ci jamonoom aramul woon parce que du jur benn déséquilibre ci ndax dañuy nëbb dañuy yemale seen mbir bëgguñu ñi leen noonu jot ci loolu moo tax yooyu yonent yi dañ koy def moo tax bi mu juree déséquilibre nag lañ ne ni ah attention kooku loolu rek la bu buñ ko jàngale woon nit ñi noonu bañ ko def benn mot boo xam ne bu subjectif la ku nekk ragal ko boo ko di ko def nag waaye dangay ngay làqu waaw loolu moo lay xañ sa dignité xañ sa dignité toujours moo tax góor gi Yusufa Jóob xam boobu lu ko ëpp solo parce que suma turandoo amoon na orchestre ki nga xam ni moom la ñuy wax imam Farabi Mon, mon inventé instrument musical bi ñu tuddé xanuun waaw te non seulement philosophe la mais mystique la c'était un mystique Wa, te mi ngi dem euh, euh, temps wul sax mi duggal na ci ba inventé ben instrument musical bu ñu tuddé xanuun Ta ñett la tubaab yi canon la ñuy wax tubaab yi canon la ñuy wax waaw canon bi fé féeteeg sharia mooy loi walla canon bi féeteeg guerre koy xareel fetal ko walla canon bi firi musique nga xam ni dafay jeexital ci jikko ñett yi lañ ne mooy defar doomu aadama waaw pour wax la ni mag ñi xam nañu luy musique xam nañ ko xam nañu luy